la 7TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bi ak ñun ñi nga am mbégte euh, teewaat fii ngir waxtaanee réew mi askanu Sénégal ak euh, lépp lu ko soxal xam ngeen ne actuellement ñu ngi ci ñu ngi jëm ci élection présidentielle yi euh, procédure bi nga xam ne dans le cadre du processus électoral daal dinañ koy tàmbalee fële ca conseil constitutionnel mu ngay wéy gannaaw parrainage yi euh, réclamation yi mooy dox jamono ji euh, ci diggante 21 candidats yi nga xam ne conseil constitutionnel jot na leen retenir le temps que d'ici 20 d'ici le 20 mu daal di proclamer la liste définitive bi nga xam ne mooy daal di annoncer ñi nga xam ne ñoo war a dem defi ji campagne loolu dina dinañ ko waxtaanee ñëwaat également ci pro ci euh, fichier électoral bi nga xam ne jamono ji contestation yi également bëri na ci euh, ba ci élection présidentielle yi ndax loolu mën na am impact ci élection yi ngir waxtaanee loolu yëpp dañu am mbégte euh, dal di dalal ci plateau bi major Alioune Kandji nekk gendarme à la retraite nekk également consultant chroniqueur. Major ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Sénégal 7. maa ngi lay fay di kontaan ci invitation bi. Mhm. Sénégal 7 quand même c'est la télévision qui éclaire beaucoup. Oui. parce que là on s'écoute et on se parle. Mm -hmm. et puis ça c'est de communication y a ce qu'on appelle l'échange. le sens de l'écoute quoi mm voilà c'est ça donc loolu dafa am importance ci télé quoi donc il faut que ngay déglu ñuy développer ay idées ngay compléter ñuy compléter jusqu'à ce que les Sénégalais comprennent mm -hmm. donc c'est ce que nous allons chercher aujourd'hui d'accord c'est la tradition également à Sénégal cet fexe ba sujet bu ñuy aborder rek mu fexe ñu fexe mu leer ci xel yi si euh, xel yi euh, leer également ci choix yi nga xam ne décideurs yi mën nañ ko def mais également population bi ci contexte bi ñu toll nii ñoo aye ñoom ñoo war a tànn. bu nga defee ñoom aussi ñu mën a def seen choix comme il faut. donc ñu tàmbalee euh, waxtaan bi major ci li nga xam ci lañu nekk actuellement nga jox ñu juste d'abord sa lecture balaa ñuy dugg ci le vif du sujet le votre lecture ci processus électoral bi. événement yi ci am bëri na rebondissement yi ci am bëri na contestation yi surprise yi. Mhm. Euh, ku ci nekk lecture bi nga ci am yow sa bos ban la. boo lecture bi nga ci am xam nga un pays pour nga bokk ci élection dafa am des processus ce qu'on appelle des normes quoi mhm. des étapes à franchir déjà y une condition d'état c'est-à-dire il faut nga nekk sénégalais bokk ci liste électorale yi nga indépendant wala nga yor parti mhm. donc après nga ñëw jël say fiche de parrainage nga dem parrainer boo parrainer il faut que nga am nombre requis bi sans doublon loolu la mais à part cela il y a des cautions à c'est dans la forme tout le temps boo ko fay aussi doo dem après say say say say parrainage ñu xool ko bu ñu xoolee say parrainage nag ba pare euh, foofu lay problème bi gën a amee nag actuellement parce qu'il y a ce qu'on appelle les de doublure cela veut dire quoi que dans les autres pays du monde da ngay gis ñu bokk ci benn parti ils n'ont rien à régler ak ñeneen mais Sénégal ci ngay gis ne bu waa bu waa euh, x ñëwee fekk si Y ak Z su Z di def wala L di régler da ngay gisaat waa X Z di ñëw c' est à dire. ñoom ñoom c' est à dire il fréquente tout le monde. Mhm. c' est à dire c' est du commerce électoral. Mhm. c' est c' est c' est oh, excusez-moi du terme finalement sax c' comme ce qu'on appelle la prostitution politique quoi mhm. loolu mooy indi leader yi problème. c' est le cas de Bougane mooy cas yi ngay dégg nii parce que tu es surpris quand tu appelles trop les Sénégalais rek c' est un danger Et quand un autre appelle, c'est la même trop, cest à les gens des autres aussi viennent te voir. mais bu ñu gisee lu tey seen xel ils n'ont pas le droit d'appeler pour attirer peut-être l'attention. sur non mooy booy wootee fii naan ñëw leen ma def nii def na le. am na ñoo xam ne sénégalais dañuy ŋarale ŋarale boobu nag mooy rey un politique ci ci dublu. d'accord moo leen di rey. cest ah, dans le cadre du parrainage. boo gisee surprise yu bari loolu ko indi. Mhm. donc yow boo amee benn position bu sori rek Non, je vous dis, hein, si tu as une position de septième, huitième, dixième, rek tu mort au Sénégal avec l'histoire des parrainages parce que les gens qui te fréquentent, c'est eux qui sont avec tout le monde avec les autres. mais est-ce que est-ce que problème bi foofu aussi mën nañ ko limiter foofu euh, ñu ngi wax également que waroon nañu mën a dépasser fii en termes de démarche ak technologie bi fu mu toll man nañ def de sorte que même les doublons n'auraient pas existé. non doublon il faut que exister parce que yow yaay wuti say yaay wuti say pare. il faut que mu mhm. man damay wuti ay pare dem Bargny dem Guédiawaye dem dem Diourbel dem fule. Mhm. yow boo ñëwaatee jaar fi ma jaaroon ñoom it pour satisfaire la yow yaay indi doublon non ñoom ñooy indi doublons yi xam nga bu doublons yi ba tey Sénégal yi comprendre lu ñu demee. Hmm. c'est le fait de se faire parrainer par la même personne. plusieurs fois hmm. plusieurs fois. loolu n'a pas de problème n'est pas responsable le conseil constitutionnel quand tu mets les cartes quand tu mets les cartes rek. Hmm. <coughs> les les renseignements d'identité xam nga carte d'identité day am benn numéro ci kanam. mooy numéro bi ci kanam mooy quatre chiffres yi. kooku mooy sa numéro d'identification. Mm-hmm. mais numéro d'identification pour mu différence dañu dañ ci yokk sa date de naissance. Mm-hmm. doole ci sa extrait de léegi nag moo tax léegi nag bu duggee rek ci fichier bi day xam nagam kii carte bu baax la wala bu baaxul la wala yow da ngaa hasardé beneen carte d'identité. Mm-hmm. da nga da nga jël rek remplir. am na ñuy def noonu quoi jël rek remplir. comme par ni ma professionnel yi nii. naa la indil mille personnes yoo xam damay bind rek di inventé seen carte d'identité dem. wala di jël code yi di inventé rek ñooñu bu ñu ñëwee dañ saat dañ dañ mais sinon dañu nekk doublon ci yeneen nit par hasard au Sénégal buñ duggee c'est-à-dire mën nga ko sax mu rëcc parce que mën nga tomber ak renseignement d'identité yoo xam ne la personne là n'a pas parrainé quelqu'un mais nom bi du coïncider bind ci numérique yi mën na jàll ba pare nom bi du correspondre ak mais est-ce ay cas ay cas yoo xam ne euh, da ko gis yoo xam ne c'est c'est existant par rapport très rare ah c'est professionnel ñoom xamuñu ko <coughs> moo leen tere li tax maîtriser wuñ ko mu jox la carte d'identité bi identifié ko xam nga xam nga boo jëlee tey dama la jox exemple ah mais il te donne des noms fictifs avec des numéros d'identité. vous avez été à la gendarmerie. non j'ai mhm. la je suis spécialiste dans les faux. Mhm. <coughs> ma bi ñu defee parrainage laa leen wax ne bi ma gisee fiche ci koñ man leen yéen les gosses là vont parce que ils, ils savent que le le la la la, la le numéro de de d'identification c'est quatre chiffres. Mm plus date de naissance dat date de naissance. Mm -hmm. année de naissance plus année de naissance. day def date bi sa à dire le 31 janvier. le 31 mm-hmm. 1 bi 01 bi di janvier 1950 di sama année de naissance mu jël sama numéro extrait de janvier 1957 ak Guéguy Dew. Mm-hmm. donc ci début bi damay am code ngi Dew. donc man Guinguinéo maay numéro 0027 3027. Mhm. donc cote Guinguinéo c'est 1400 euh, euh, 1476. Mhm. loolu la man bu ñu ko xamee nag ma xam ne cote Guinguinéo loolu la man damay bind mill 1476. Mhm. bindal la 31 nangam bindal la 0028 moo topp ci Alioune Kandji bi am na technicien yu mel ni man dañ koy xam dañuy bind rek di bind ay noms. boo ñëwee noob yow boo ko liiree dès le début yow boo carte bi mu lay jox nekk numéro d'identité normal. <coughs> mais boo demee nag sama frère bi nga xam ne moom ki nga xam ne moom géej gi ne maa moom moo bokkoon date de mhm. nga fekk yow boo demee mu sàkkante nga fay nekk. géej gi mu sàkkante lay doon mais yow jël fi Alioune Diagne. Uh-huh. c'est-à-dire fekkee ne mën ko andil ndox. bu di mën a naan. ça lui ferait du bien n'est-ce pas. c'est mais mais dafa garaaw. Mhm. booy parrainer il faut nga toog waa ñëw nga te kooku pour mu bu dee demul feneen. Mhm. mais nga toog ñu indil la fiche. ñëw tu es mort. la fiche. alors loolu loolu moo leen jàpp. Mhm. dañoo def doublon ba pare et puis ci des c'est erroné. Mhm. parce que même même waa ci bu dee bindalee par hasard rek un un numéro d'identification d'identité normale. mais da koy inventé xam nga mais su ko inventé au Sénégal sax day mën na coïncider ak beneen turu nit feneen. mais loolu est-ce que est-ce que les candidats dits entre guillemets c'est vrai que tout le monde on peut considérer sérieux mais est-ce que les grands candidats ñi nga xam ne xam nañ leen bu baax d'une manière très constante dans l'espace politique est-ce que ñooñu genre erreur yooyu mën na leen dal wala est-ce que mën nañ ko seetaan muy dem leen di dal seen militants xam nga dama la wax sax dafay am kaaw doublon normal ñoo xam ne mhm. da lay wóor na ñi il s'appelle temps temps ba pare dem ci yow dem ci man ñooñu am ñooñu doublon type la. Mhm. am na yoo xam ne nag incohérence lay doon da defal numéro pièce d'identité mais boo demee ci pièce d'identité boobu beneen tur nga fay fekk te xam nga gars yi ils ont le fichier national. Mhm. loolu la ñuy fàtte gars yi ils ont encore le fichier national. donc il te il t'identifie sur le doublon il t'identifie sur le sénégalais sur la la la le nom et la et la pièce que tu as enregistré. d'accord <coughs> donc deux fois lañ lay jàpp. moo mhm. moo deux moo tax yow boo ñëwee en boole say doublon boole yu bon yooyu yi la gars yi di fiche xamal ne tu xam nga ils un nombre double <coughs> mais la plupart de temps day bëri doublon mm-hmm. bu pare am ay faux renseignement gisoo kiñ ci jàppoon mu doon ay liste rek mm-hmm. yooyu koy def mais yooyu c'est terre à terre Sénégal boo ko fi defee doo jàll d'accord mais euh, major est-ce que jàppoon aussi euh, fi ñu toll ci mbir mi noonu ak digitalisation bi ñu ngi dem vers euh, la numérisation et tout mm-hmm. ça ñu ngi ànd ak technologie bi ci vitesse am bon l'État peut-être fait de son mieux mais est-ce que fii nii il n'a pas raté le coche dans la mesure où ñuy gis euh, de manière euh, entre guillemets archaïque nekk di bind et tout waroon nañu mën a remplir benn fichier boo xam ne en fait bu ñu dugalee le nom et les informations d'un parrain mais que en même temps le conseil constitutionnel reçoit les mêmes informations. pour valider ou non. non non non comprendre loo ba tey yow dañuy parrainer. non je veux dire ça je parle de d'innovation. d'innovation. ils n'ont pas accès. oui les candidats on le met on ne met pas à leur disposition le le fichier national de de de de de des de Sénégalais duñu ko def. dañuy dañ leen di jox les fichiers nationaux ñoom dañ leen di jël. Mhm. comparer leen ak leur parrainage à eux. Mhm. qu'ils amènent des Sénégalais qui les parrainent seuls. et qui sont inscrits dans le fichier électoral maintenant c'est toi qui amène les informations mi ngi mel ni nga dem banque yóbbu sa pièce d'identité léegi boo ñëwee le banquier il identifie ta pièce mhm. si yow on t'a mis une photo à la une autre photo à la place d'un autre mhm. la fay mais aussi en banque aussi aussi même si tu pars à la gendarmerie nationale là mhm. les les Ghanéens là et les et les et les et les et les Nigériens là mais man jàpp naa ba taay ñuy ay carte d'identité nationale sénégalaise jaamu def ci sa photo defar carte normal normale yi ñu or les gens les soo demee banque da ngay fayu. mais est-ce que xeetu <coughs> xeetu fraude boobu aussi mën nañ ko concevoir dans dans la. <coughs> non dans la vie courante les mais bu demee ci kaw. non bu yeggee ci autorité ñoom buñ fichier bi ñu yor mooy bu baax. Mm-hmm. bu boobaa dañ koy trouver ni kii baaxul. d'accord ñu bàyyi la nga euh, jël. un peu d'eau voilà ok c'est bu ko defee bu ko defee ñu daal di euh, wëyal euh, yaa ngi wax waxu fichier. mais euh, on va en profiter pour parler un peu du fichier électoral euh, gars yi ñu ngi ne xamuñu ci ban la ñuy nekk di sukkandiku pour def li ñuy def donc y a confusion à ce niveau là. non y a la mise à jour du fichier gars yi ñu wax leen neex rek gis nga les policiers là là où ils sont. Mm-hmm. ak les gens du bureau électoral là les commissaires Sarr mon frère et tout ça. je vous dis que ils ils reçoivent les mm-hmm. comme tel dans un système protégé. comme système affiché la kenn mënu ko modifier. Mm-hmm. renseignement bu baaxul du ci dugg. gis bu duggee ñëw. même le chef des bureaux là commissaire Sarr ñoom mënuñu cee modifier. il faut nga valider ko et puis dañ lay gis boo ko laalee modification à telle heure par tel tel tel lay doon il ne modifie pas. parce que ñoom duñ xam sax kii de kii naka Macky Sall lay wote la Karim xamuñu ko. au niveau de la commission de contrôle. non moom laa la wax ñoom ils ne savent même pas qui vote pour qui et qui vote pour quoi ñoom ils ne cherchent que des données et ils les enregistrent c' est plus que le PDF gis nga protocole bi gis sa carte d'identité sama carte d'identité dafa réeroon tey laa ko changé gis sa benn carte d'identité rek pour pour commissaire bi changé ko mënu ko commissaire day mhm. n'a rien sa responsable mu validé nga demaat ci beneen policier yoo xam ne ils n'ont rien à foutre dañ lay validé waat yi doo koy tiire carte d'identité pour Sénégal pour nga am ko da am trois validations da dem ci commis carte bi ngay déposé mhm. commissaire commissaire fii automatisation kii bi affaire. daaf bi visé. am na policier boo xam ne ci moom lay njëkk a jaar mu vérifié ndax responsabilité bi la bu pare demaat ci beneen co policier mu visé waat. Mhm. doo ko joxe ordre de tirage bi kii tiré xool lim tiré conformité empreinte digitale ak sa historique doo koy vise doo koy tiré donc ce que les gens disent d'or là mais le Sénégal ne travaille pas comme ça moo tax il fallait qu'on les amène sénégal Sénégalais ñu les systèmes étatiques et ce que le ministère de l'Intérieur a mis en place le travail sérieux et colossal que les policiers font il faut un jour ñëpp dem visiter. mais est-ce que waruñu aussi communiquer dans ce sens-là. il faut partout communiquer boo bëggee da ngay comprendre boo bëggul doo comprendre mon frère Sénégal dañ nekk ci réew personne ne veut comprendre. des citoyens je veux dire. non citoyens yi wax nañ ñun xam citoyens gis nañ li ñuy daj am passeport ak carte d'identité <coughs> c'est plus sérieux système politique bi mooy léegi personne ne veut perdre et s'ils perdent ils disent de quoi mais boo ñëwee ak ku mel ni ñun doo jàll parce que li ngay wax ñun xam nañ ni muy demee gis nga yi <coughs> seen parrainage dañ koy def affaire ngénte tubaab dañ koy foye te te c'est très dangereux nga dem lu mel ni parrainage ah c'est très dangereux nga dem ci parrainage di bàyyi ay jeunes ay booy man am na booy ñëw suma kër yor cinq cent soi-disant photocopie carte d'identité di remplir seen fiche ñu wax ma père ñun daal ku ñu gis remplir la ma ne waaye yéen ñaata ngeen laaj ñu naan ma dix mille cinq mille wala man kon yéen ku leen jox cinq mille wala dix mille ngeen remplir ko après ngeen dem ci gars yi si yoon nekk ñoo xam ñoom ñoo koy wër gauche di yor parrainage di wër Sénégal di parrainé xool kooku cinq cent yi bu ñu la ko dóoree yow nga yaakaar am nga cinq cent ñu dóor ko sa morom <coughs> trois candidats wala quatre cinq candidats bu tous vous vous enlisez dans le mm-hmm. gën a garaawati nag mooy nga toog ñu am na booy band yoo xam ne seen seen yëpp lañ xam day bindal la bindal ba nga dugg boîte vocale gis nga xam ne nii boo ma waxoon sa date de naissance léegi rek ma dugal la gée neew sa date de naissance léegi ma defal la benn benn numéro carte d'identité boo juddoo gée ngi neew boo xam ne cote gée ngi neew ci nekk mais buñ demee buñ demoon bu dem tey même bu tombeek beneen tour en décembre bi ma juddoon da ngay gis beneen tour a fay nekk ci fichier par exemple ki topp ci man Guèye Ndew numéro 28 lay am ci extrait. loolu mooy mooy wane ne ñuy wax naan euh, ce ce ce parrain ne figure pas sur les fichiers. non du figurer parce que nom bi du ànd ak date date de naissance day nekk yëfi keneen. Hmm. da am problème xam nga c'est du sérieux ñoom li ñuy wax gis nga policier lañ gën a crédible fichier bi alkaati yore hmm. gën a crédible. bureau des élections lañ gën a crédible. bureau élection mënuñu mais yow tamit naka la bureau élection di xamee ñan ñooy wotal Macky Sall ak ñooy wotal APR ces gens-là ne peuvent pas connaître qui vote pour qui ou pourquoi. Ils ne gèrent que des informations requises qui sont normées selon les normes numériques, selon les normes nominatives. yooyu la liggéey ñoom mais nous un pays boo xam ne kii kii perd se justifie Sénégal loolu problème bi boo échoué examen naan dañ maa xërëm ak damaa dem di nalawoon boo on dañ maa gëlëmal ak ah mm-hmm. boo yàggee nga ne wàcc na dañ maa magu xoolal boo ko génne la ay documents day am mille fautes man am na benn gaañ boo xam ne dama ko corriger mm-hmm. il est mais dama ko corriger après il a eu faille il était devenu deuxième ou troisième quoi. c'est un concours. un concours man maa ko corriger ndax man maa directeur lépp corriger ko sax bopp parce que ay pour technique la woon ay scientifique. des mais il a râlé. mais pour moom dafa nekk paie ma ne ko avec de quoi mun naa ma ne ko d'accord venez mais ça bi mu ñëwee mais empreinte digitale yi mu ko classifier les ministres il a zéro sur question. Il, 7 sur 5, il a 0. Mm. Donc là-bas, il a 0, mais il n'a pas fait attention. Il a pensé qu'il avait bien classifié les municipes. Alors que municipes, il a classifié, il a de non. Mais il faut que je mais dans le cas ko nous connaissons. Mais je vais expliquer comment gérer. Vous voyez le fichier là, les gars, ils ont des nits, des cartes d'identité et cartes votants normales. D'où l'ordinateur avec la nomination et le numérique. de numéro normal. mu coïncider nga xam ne waa ji boo xoolee numéro carte d'identité da ngay xam tout de suite ne Gossas la juddoo wala Mbacké wala Guinguinéo déjà pour commencer. Mhm. xam ne telle date la juddoo foofu à Mbacké. ba pare daal le registre de d'état civil. Mhm. il est le numéro 27 de l'année de naissance. mais il coïncide avec le nom de Alioune Kandji. léegi nag même boo jëlee man sama numéro carte d'identité day day normal day ndurul normal Guinguinéo. mais bu ñu demee ba ñoom bu numérique numérique normal bi ñëwoon. Mhm. bu ñu ko gisee dañuy gis ne Alioune Kandji la depuis sa naissance depuis sa première pièce d'identité. Mhm. mais yow tu es venu cinquante ans après. Mhm. pour prendre ce numéro et le donner à aux jeunes seen problème. dañuy daanu boobu cox taxaw. mais bu ñu demoon mais YouTube le gars du fichier ne peut pas être là toute la journée à pour pour environ un million de personnes mënut a nekk. yow dañu lay wan rek boo nangoo tu es légaliste nga dem sa yoon. d'accord ñi ñuy des nag ils sont venus avec des clés yu bëggee. Mhm. d'accord donc on peut dire que donc fichier bi nga xam ne moo moom la administration bi di utiliser normal ci normal la dañ ko feere kale ko mhm. synthétiser ko vérifier ko auditer ko déparasiter ko <coughs> et puis denc ko nag dañ ko denc no seulement dafay nekk ci fichier circuit normal officiel bi ñu génne. Mhm. dañ ko def ci ay banque de données yu ñu yóbbu. mais pourquoi les candidats n'ont pas accès. à ce fichier là ils ont ils tout que c'est bon ils peuvent pas prendre le fichier d'autrui le fichier là boo leen ko waroon sax ñu koo lire yow li ñu leen di wax da nga naan surtout yii ay doublon doublon la ay techniciens ñu recruter la yoo xam ne semence bi la ay jeunes intellectuels ingénieurs ñëw toog bu ñuy sànni rek c'est le système qui le dénonce système bi sinon Boubacar Camara du jàll Babacar xaw ma nan Ngom du dem mhm. no dañuy nax seen bopp. <laughs> Déthié Fall du jàll. kan ngay ciblé kii ay nit ñeeg ñooñu qu'est-ce qu'ils représentent ñooñu mënuñoo gagné ñooñu loolu de candidat potentiel yaa ngi fi am kay dañuy jàll. dañuy wax lu leen neex et puis du ñu nangu ñu nekk ci une administration sérieuse ou des jeunes que nous avons recrutés des Sénégalais qui font du travail des commissaires des experts des grades et des policiers ah. et donc il y a des FDS dans le travail. non ñoo xam nga le euh, numérisation fichier au Sénégal pas le fichier. mais système carte d'identité policiers yoo ko yor d'abord. Ah il faut le travail normal ñoom en gérant que des citoyens pas des militants. les policiers gèrent. le système de l'automatisation du fichier national des, des identités mhm. et c'est à partir de là-bas où les donc yow loolu loolu boo taxawee tey man maa ngi nii bi ma demee léegi sama carte d'identité ñu ma ko oto bi lañ ko sàcc ça fait une semaine mais bi ma demee tey jaar circuit normal fay normal def normal <coughs> dañoo interroger système bi génne samay kayit mais tey boo bindee sama tur extrait ba pare bind 3027 mais c' est Guinguinéo je suis né le je suis le vingt vingt septième naissance du mois de janvier 1957 à Guinguinéo je suis le la vingt vingt septième naissance. si ko loolu la. Mm-hmm. mais ñun ñi xam xam nañ ni alkaati yi liggéey xam nañ ni waa fiche bi liggéey xam nañ ni ñuy liggéey Sénégal si il y avait pas de sérieux Abdoulaye du fi nekk président Macky du fi nekk président il faut qu'ils arrêtent et qu'ils essaient de se normer mais di wax rek di dem di doxee bopp. 1000 personnes ànduñu àndaanuñu mais Sénégal bu fi 200 personnes parrainé xam nga ne du baax. d' accord alors euh, dañuy dañuy wéyal ci ci loolu ba tey parce que li nga expliqué nii yëpp ak euh, peut être euh, bon certains disent qu'il y a de la manipulation certainement mooy sa position yow. non amul manipulation. non je veux dire de la part des <coughs> opposants. non ils ils le diront chaque fois. wax naa la ni Sénégal les gens se justifient en cas d' échec ils se justifient. le temps les correcteurs le Ils disent, mais pourquoi Dans ce cas d'espèce, ils accusent le non, Conseil constitutionnel. voilà, donc... Conseil constitutionnel n'a rien à voir dans ça. Conseil constitutionnel, de, de, conseil, constitutionnel, comme son nom l'indique, la constitutionnalité, ça parle la forme. Mhm. La forme. Le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, de nous ce dossier complet. C'est bon Tu as parrainé. Nous mhm. avons ingénieur, indi ne doublon, il valide. Il valide, il a parrainé. Les gens vice de forme yi. Mhm. c'est que nous allons débattre d'ailleurs. c'est ça justement ci la ñuy ci la ñuy dugg d'ailleurs ak euh, réclamation yi nga xam ne am na euh, d'abord recours yi balaa ñuy ñëw ci réclamation yi concernant le cas de son Sonko euh, son avocat def na recours mais. li ñu ko c'est oui c'est vrai mais li ñu li ñu cons li ñu constaté en tout cas euh, par rapport à la dynamique du conseil constitutionnel nee na ces recours et réclamations là ne concernent que les 21 candidats qui ont qui sont retenus Ousmane Sonko n'en fait pas partie léegi yow euh, procédure boobu avocat yi euh, maanaam mandataire bi euh, tàmbale est-ce que yaakaar nga ne mën na aboutir et mën na am un résultat. xam nga boo defee une requête attenant à ce qu'on appelle benn recours. Mhm. y a on te on dans la forme et dans le fond on te déboute. oui Ousmane looloo ko dal chaque fois il vient déposer dans la forme et dans le fond il de caution est-ce que xam a la amul mais. mooy mooy caution bi yóbbu na yóbbu na waaw mais moom nga. Mhm. mais la la recevabilité pose problème Ousmane Sonko mais il n'est pas intelligent Ousmane Sonko comment on peut dissoudre son parti pour pour pour pour, pour état de crime état de criminel association de malfaiteurs un mouvement terroriste Ousmane Sonko di penser réew moom mooy président du président dafa yebaate de. Sonko Sonko président pas du tout. dès lors que tu es membre d'un parti dissous. de la hmm. sorte tu peux aller nulle part te présenter naan candidat libre rek. indépendant sous-indép sous-marin coalition ça ne peut pas être c'est une de personne c'est une une rembo et une personnae cest à sa jëmm la ak sa deret ak sa bopp ak sa yàq soo dem ak ay détails la yoo xam ne dañ koy wax un profane mu di ko gëm kon lu bu amoon kon criminels yi boo dàqee criminel gendarmerie boo dàqee nit gendarmerie wala magistrature pour vol et crime mais bu génnee mais il doit pouvoir se présenter mën na wutaat beneen extrait ñëwaat ne damay présenter waat wutaat beneen bac mais bu boobaa boo ko xamee dañ koy dàq mais bu ñu xamee ne lay ah. dàqal. d'accord kon yow c'est question de de la personne physique. et hmm. morale c'est ça jëmmam la ñoom ñoom seen jëmm yooyu blanchiment humain la kenn ci ñoom wartu mën a ci présenté wu Sénégal ci affaire politique c'est fini. donc da nga jàpp ne peut-être ñii nga xam ne. ñi jàpp nañu ne acharnement bi. Euh, de la part de l'administration loolu moo ko justifié. parce que mënul bokk ci dara. Cheikh Yérim xam na li ma Cheikh Yérim da koy expliqué ngeen teg ko wax kat Cheikh Yérim li mu la wax xam la Ousmane Sonko moo gën a xam ne mënatul bokk Sénégal élection fii. tant que problème am bi résoudre ko du erreur bi njëkk a mooy dem CEDEAO hmm. def recours sur l' état de dissolution de son parti erreur la def. il a été non il a confirmé c' ça son danger c' fini pour lui il n'a qu'à ranger et aller purger sa peine négocier pour être amnistié ëllëg pour ñëwaat dans la scène politique dans dix ans. d'accord mais mais s'il continue comme ça il perdra son temps <coughs> même les gens qui étaient affiliés à PASTEF là yëpp ils subir le même sort. maa la loolu. d'accord alors ñu ñëw maintenant ci ci réclamation yi euh, concernant votre candidat. Amadou Ba. waaye vous soutenez Macky Sall mais puisque Macky dafa def son choix sur candidat Amadou Ba donc nga topp wala euh, topp euh, dynamique bi moom dafa def des réclamations contre la candidature de Bassirou Diomaye fay et celle de euh, Cheikh Tidiane Dièye pour quatre motifs. allez benn bi appartenance à une entité politique dissoute. C'est ça. bi production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel. Uh-huh. la coalition une coalition irrégulièrement constituée et enfin non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi. commentaire bi nga ci de njëkk bi euh, parti dissous uh-huh. le parti Pastef a été dissous pour état criminel. c'était association de malfaiteurs. il a été dissous pour association mouvement terroriste activité de terrorisme qui est criminelle l'activité est criminelle donc le principal auteur on l'appelle le criminel quoi l'auteur des faits c'est le criminel gis nga en matière de crime bu dee da nekk ku auteur da ngay jàppale auteur bi wala nga di ko dimbale on t'appelle assimilé et dissimilé kii euh, euh, euh, on les appelle des affiliés et des assimilés mm-hmm. ñoom ñëpp c'est des assimilés et des des des des des des kii c'est différent de complice. waaw c'est des complices et des co-auteurs. ñoom la ñuy tuddee ay affiliés ak assimilés. assimilé mooy ku ñu considéré comme auteur bi affilié mooy complice yi c'est comme un blanchiment d'argent c'est un blanchiment humain xam nga blanchiment à d'argent xam nga luy blanchiment d'argent le blanchiment d'argent c'est le fait de remettre quelque chose a été gagné illicitement mhm. dans le circuit licite de l'économie d'un pays donc on sait du dans le cadre du blanchiment euh, une association de malfaiteurs oui. les de cette association de malfaiteurs nga xam ne dans la lecture objective du droit mm -hmm. dans un état si on était à une condamnation il y a ce qu'on appelle une peine complémentaire obligatoire qui est visée par l'article 34 même si c'est une peine complémentaire obligatoire même si le juge l'oublie on l'applique ñoom pratiquement bu ñu jugement de leen dal ci dégradation dañ koy am ñoom jomaay da koy am jéey da koy am même les gens xaw ma taxaw Sénégal lu nga tuddati xaw ma li ñu ko waa les appelle la yeewi barki normalement ñëpp la war a interdire dans la logique du droit jàpp ne foofu la ko wékk non fi mu ko wékk moom saa mu wax ko sax ñun ñoo ko doon xam nañ ko dañ koy demandé c'est des c'est des association de malfaiteurs képp ku ci bokk c'est comme un blanchiment d'argent c'est un blanchiment humain waratoo mën a bokk ci politique Sénégal amuñu bi li wax sax dafa tuuti c'est des affiliés et des assimilés kala xamante ne amul ban bu mën la bu ñuy c'est des criminels c'est des assimilés et des affiliés ñoom ñëpp dañ leen war a woo en complicité bu ñuy jugé Ousmane Sonko ak ñoom Dieye même tout ce qui était ndax ñoom ñoo bokkoon di manifester bokk animé. mais seulement la différence ici on parle de parti dissous alors que yow Cheikh Tidiane Dièye bi nga était parti il faisait partie de la coalition Yewwi Askan Wi. il a une différence. je sont dans le même régime juridique de poursuite de pas a ils sont, ils sont tous faits. c'est-à-dire Pastef on a cité Pastef. mais Pastef était le porteur du projet. mais dans les éléments constitutifs dans les acteurs il faisait partie des acteurs qui animaient le projet criminel de Pastef. mais ba tey justice précise. moom laa wax ne eggaguñ ci jugé guñ leen <coughs> moo tax ñu nekk fi di wax ak mais ñoom ils sont irréguliers ils ont donné de fausses informations parce qu'ils font un délai pour venir mais dans la dans la proactivité. Mhm. et dans la prévention du droit ils doivent rester tous hors la politique jusqu'à Hmm. de Ousmane Sonko. c'est moi qui le dis on ne peut pas accepter dans un pays où une association de malfaiteurs de criminels ont un projet criminel dans un pays mais tu diras seulement que Major Kandji et les Baol-Baol ñoo ko organisé woon ñu ci dañ cee àndoon ils sont tous là-dedans. d'accord alors au-delà on doit tous les mettre dedans. gis nga li gis c'est une association de malfaiteurs toute activité qu'il essaie de faire sur la politique sénégalaise est assimilée à un blanchiment Oui. C'est délictuel. C'est illicite et non conforme de droit. Personne ne doit les laisser participer aux élections. Tous ces gens-là. D'accord. Alors là, je viens de recevoir une information du candidat dont nous parlons, Ousmane Sonko. Non, Ousmane. Ousmane Sonko euh, daf benn communiqué pour euh, dire que dafay informer euh, que un document public prêté au candidat euh, recalé au parrainage, il est fait état d'une euh, sollicitation de ces derniers au du président de la République. Justement mooy lettre bi ñu wax ne dañ ko adressé au président la République pour arrêter procédure bi nga xam ne moom la nekk di woyal dans le cadre du, processus que ñi nga xam ne recalé nañ leen dañu dem pour demander euh, ñenn ñi sax di wax saraxtu président la République pour ñu dakkal mbir yi. moom nee na loolu il n'en est rien. mais il a raison s'il n'en est rien il n'a qu'à le dire c'est il n'en est rien, il n'en est rien, c'est fini, l'histoire est close. Macky Sall ne peut pas leur la chance de le faire, c'est des questions de normes. Est-ce que Macky a Macky Sall Macky le pouvoir, il peut rien dans ça. Il n'ose pas en parler du ci dugg du ci wax. Parce que c'est pas son rôle. Nous sommes c'est c'est prévu par la Constitution. Dans le code électoral, on a dit ça et ça et ça. Donc dans le cas d'espèce, chacun peut aller se présenter. Benn candidat laa gis boo xam ne am na droit dem mooy le candidat qui avait participé au vote et dont son nom a été il y a Mary parle de lui également. double waaye ku ci oublié tu peux. tu peux revenir parrainer. d'accord ñoom ñoom amuñu problème ñoom ñaar moom Mary Teuw la je pense. Mhm. Mary Teuw et Ben Diop n'ont pas de problème. et je pense que si les gens se constatent que y a une omission de leur nom alors qu'ils avaient participé aux législatives aux machins aux communales et euh, l'année passée ils étaient là cela veut dire que c'est la machine ça peut arriver dans la machine les noms c'est ce que je te disais tout à l'assimilation xam nga radiation yi. maa da ci am ay simulation de non wala yooyu wala nga gis maritaw bi nga mu jot un opérateur ki n'a pas compris que c'est un de d'homme mm-hmm. mu def ko femme qui sexe masculin mu ne yaa fausse note mu mu bu ko identifier c'est s'il n'a pas compris trop le monde politique la xam ne il existe mën na ko dindi comme Ben Diop Mohamed Ben Diop moi j'ai vu des Ben Diop chez nous ñu bari dañu yaakaar ne y en a un seul y en a pas j'en vois dans les banques et qui ont le même nom et tout des nga yaakaar doublon la de non la mun na sauter mais ñoom c'est pour les retourner c'est c'est tout à fait normal c'est une question de droit de remettre Mary Teuw Niane et Ben ah, non yooyu ça arrive en informatique. Okay. la machine même qui signale les doublons. d'accord te des fois le système logistique français c'est ce que nous travaillons nous n'avons pas créé tout ah. et puis parfois les noo là dañ koy fixer moo tax même nom nit des fois dina di problème gis mu def ko féminin di bañ. Hmm. parce que ko bindee la. alors euh, votre candidat Amadou Ba euh, moom euh, actuellement euh, ni muy doxalee mbiram taxu koo seddee noonu mais est-ce que le problème ne se situe pas là où euh, il est il reste toujours candidat de Benno Bokk Yaakaar mais reste toujours premier ministre. c'est ça il est premier ministre pour l'instant. oui mais est-ce que loolu aussi c'est c'est c'est c'est à partir du 20. Oui. il sera candidat il va changer de taxonomie de posture et de démarche intellectuelle. vous savez tout est. donc app bi moo ñëw. non mais c'est normal il faut respecter Amadou Ba est discipliné il est respectueux d'un vous avez même vu dans la presse Babacar Sénéra il a bien dit que les gens n'ont plus droit de faire des propagandes autres d'ici le 23. Oui. aussi ça a été interdit non. Mm -hmm. vous étiez au courant. bien sûr voilà Baba mais mais Amadou Ba il faut qu'il reste premier ministre il faut qu'il continue de faire une démarche de premier d'aller inaugurer de mhm. mais il parlera de rien le 24 prochain nous allons voir ce qui va se passer parce que le 20 on donne la liste à partir de 23 tout le monde va sortir on dira ce qu'on veut de chacun et chacun dira ce qu'il voudra de nous et nous allons débattre des débats intellectuels et chacun va éjecter de sa bile ce qui est un projet de société normal parce que je pense au Sénégal que nous avons une opposition qui ne fait que de la délation qui n'a pas de taxonomie de Bloom pour proposer aux Sénégalais des projets smart de développement socio-économique en ah, répondant non y en a pas non waxal rek yéen journaliste da ngeen dégg non Camara moom ce sont des des projets que nous avons la armée il est venu ñun ñoo ko armée deuxième classe il est brave il est courageux mais Déthié aussi waaw mais ñun ñoo am li réel ñun ko gis li ñu def xam ne ñun on fait du réel mais le virtuel peut être un projet intellectuel pour convaincre mais c'est ce qui celui qui fait le réel c'est quelqu'un qui met les populations dans la pyramide de Maslow. Parce nous, nous mettons les Sénégalais. En non, non, non. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, c'est des chimères. C'est par c'est quelque chose, c'est comme un film à Hollywood. Il faut que des films politiques à Hollywood. Mais, mais, à Hollywood. Nous, sommes dans, ce que nous faisons, ce que nous, sommes dans la démonstration. Nous sommes à, TV, tv euh, constaté. vous montrer démontrer physiquement. parce que vous parce que la taxonomie de Macky Sall des gens ont été en œuvre partout dans le monde mais personne n'a pu réaliser d'une manière concrète et smart ce que Macky Sall a fait Amadou Ba étant un bon préposé c'est-à-dire un préposé parce qu'il est jeune il est jeune plus jeune que Macky Sall il a été formé à l'école du développement économique surtout mais il a la discipline de background et la méthodologie C'est pour cela que Macky Sall l'a choisi. Je suis chaque fois que Macky Sall n'est pas l'ami à Amadou C'est le travail qui les relie, parce que c'est un compétent qui peut apporter quelque chose à son pays et qui a la garantie et la confiance des institutions financières. Parce que les institutions financières dans le monde ne donnent plus de l'argent à quelqu'un. Bon, il y a des gens qui expliquer après du n'importe quoi. réew mi mu am crise économique ñu naan la récession la nangam on vous remet dans ça mu taxaw fële wàcc daal di daw dem yoonam ak njabootam les gens n'en ont plus besoin parce que les bailleurs de fonds les les les institutions de Bretton Woods la Banque mondiale le FMI l'Union européenne et autres dañoo xam ne léegi en Afrique il faut qu'on fasse des de développement qui maintiennent les populations qui les amènent à un développement socio-économique au du le le le moins reluisant, même si vous voulez, c'est-à-dire même si ce pas reluisant, qui puisse les maintenir dans le territoire, qui puisse les faire nourrir, qui, puisse, soigne. Mais, li ngay wax ni mais c'est ce que c'est c'est en parfaite contradiction avec ce qui se passe Non, c'est pas en contradiction. C'est-à-dire nous, nous avons... Parce que loolu terewul gars yi di dem à l'immigration. Non, mais normal parce que ils veulent li ñu bëgg na. Non, non, non, non, c'est relatif. La pauvreté et culturelle. teewul ñu ngi gën di endetté non attendez l'endettement est économique pour se développer il faut s'endetter. oui la Chine non la Chine s'est endettée en ce pour se développer la Chine est allée les eurobonds il les a pris à combien vous savez combien il les a pris les eurobonds il les a pris à 6 pour cent 4 il a tout pris raflé avec des garanties ba pare ñëw di ñu ko jox 7 pour cent 8 dil la le le réduction de la dette mm-hmm. élimination de la dette. ah il y a de la dette il y ça c'est comme ça que tous les pays vivent nous vivons de la dette parce que nous avons des projets qui répondent à notre développement démographique à la démographie nous avons une démographie rapide boo nga xam ne ñun suñu économie interne ce que nous gagnons et ce que nous travaillons dans notre pays à part les ressources que nous espérons gagner les gaz et autres à part ça ñun suñu suñu développement démographique ne nous permet, ne nous donne pas la chance de pouvoir les satisfaire avec le, ce ku nous gagnons dans le pays c'est-à-dire notre économie non interne. les ressources domestiques. non ñu am ni mënu ko. Sénégalais dañu bari macha allah dañoo am ay exigences dañoo mën a yàq te duñu liggéey donc ce que nous gagnons ne peut pas les nourrir il faut que chaque année on cette année nous avons un, un déficit de nous avions un problème de 7000 milliards. Mm-hmm. mais nous n'avons pu avoir que 4900 milliards. et que le besoin pressant des Sénégalais est de 700, 7 000 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait Nous nous sommes endettés pour 2100 c'est normal. Parce qu'on ne peut pas dire à des gens qui manger, se soigner, aller à l'école, boire, se loger, travailler, budget avancé. Mais on va faire un cumul de quoi De sous-développement économique. On va faire un cumul. Ce cumul-là, pour nous, parce que nous avons, bien calculer les Sénégalais, les Sénégalais, les fi ñu leen war a faje fi ñu leen war a jàngale fi ñu leen nangam ñun dañoo soxla woon sept mille milliards mais ñun li ñu am ci xaalis jàmbaar lañ am nañ quatre mille neuf cent milliards ñu deux mille yi lañ lépp buñ ko deful ñoom du nekk du naan duñ jàngi force de sécurité ñu ñuy recruter médecins infirmiers yi xale yi war a dem école fonctionnaires yu bees yi ñu war a jël retraités yi ñu war a fay ay rente mais duñ xaar un pays fonctionne comme ça un pays fait un galop en avant et rattrape un demi-galop en il faut que loolu aussi euh, soit accompagné d'une gouvernance euh, optimale de la, la, la, la gouvernance la gouvernance sénégalaise oui. elle est optimale elle est efficace elle est efficiente. pourtant dañuy dégg ay détournements ay non dégg xam nga la la même perte résiduelle mais Covid bi gars yi fi perte résiduelle lañ jël di ko incriminer booy bëggoon leen jàpp mais après bi ñu defee audit xam nañu ñuy perte ñu ko. te ba tey communiqué ceeb bi boo jëlee mais imagine booy nga euh, kii monsieur le journaliste quand tu amènes million de tonnes de riz mais sëñ bi cinq cent mille tonnes yi rek mën na yàqu résidu lay doon boo ñëwee ci boo koy joxe boo koy joxe di dindi lu bon di tuur gis booy pare yow rek da ngay am problème cinq cent millions de gis nga bi ceeb bi ñëwee ak li ñu doon joxe y avait des cas d'urgence yoo xam ne y avait plus de calcul ni de papier gars yi dañuy daanu ñëw da ngay dem ci benn daara fekk fa sans covid da ngay jënd léegi ci pharmacie yi di remboursé finalement c'est normal vu l'urgence day am résiduel la yam ay oubli ak yoo xam ne doo koy fàtte doo ko mën a justifier ndax gaawaay bi ndax da ngay jékki benn médecin chef indil la benn facture foo jaar fay ko parce que danaan la j'avais reçu tant de seen risque ak seen non tout je les ai soignés parce que j'ai fait bon. mais am mooy moom laa lay expliquer. mais loolu aussi xam ne la am na ko waxal ak yow. xam ko li dëgg la c'est-à-dire foofu yooyu niveau la niveau de gestion bi ñu yegg ak ak ni population yi organisé woo. Mhm. ni ñu dispersé woo ak l'influence des parents daara aussi boo leen bëggee jox des fois tu peux même pas le justifier te mais on man xam naa lépp parce que mais. Mhm.

day am keesu ceeb bi pàcc. xam nga pàcc. mooy jékki-jékki na tax donc administration sénégalaise ñi ciy liggéey dañu nekk ci risque surtout boo si yore logistique man dama daan yore logistique dans la gendarmerie tuuti mais c'est trop risqué. imagine rek nga toggal gars yi ñu lekk màggal wala gàmm rek mu saf xorom kese looy def lekk gi baaxut benn femme juum rek nga war koo tuur noo koy rek léegi exemple laa lay jox tu es léegi tout de nga rek nga rek la waat bu ñu lekk <coughs> soo amul ay pexe rek doo ko justifier ndax non on lui a donné ah le ceeb. yi xoolee parce que parfois on cherche la bonne foi. Mhm. on cherche la résultat et puis on cherche il y a des constats d'huissier aussi mais mais Macky Sall n'est pas quelqu'un qui laisse un Samba Biram. Mm -hmm. un milliard par terre le sanctionne pas il n'est de ce genre. il ne marche pas comme ça. Mhm. ci liggéeyam ci lay am ndox. mais ñun nag ñun Sénégalais ñoo delloo suñu xol. ak suñuy xel sellal suñu xol ak suñu xel di bàyyi di attaquer nit te amoo ci preuve que dafa malo nit wala sàcc la nit da nga koy suturaal topp ko ba xool ni kii ku bon la wala ku baax la mais nit am benn problème wala mu am benn ndox rek nga song ko c'est pas bon te loolu mooy suñu problème léegi ba kenn bëggatu fi dara yàq duñ xool lu baax yow lu nekk li nga am intérêt ngay xool sa njëriñ gisuma ci sama bopp imagine ce terme là gisuma ci sama bopp. dans un pays tout le monde dit que gisuma ci sama bopp mais on ne peut pas s'en sortir dans le développement. c'est vrai alors euh, temps bi ñu cëraloon mu ngi waaj di jeex euh, dañuy ñëw euh, en fait ci xalaat bi nga am ci idée bi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy agité idée d'un report de la présidentielle. mais le report de la présidentielle ça ça sera un cas c'est ce qu'on appelle les cas de force majeure. Mhm. am cas de force majeure. et pense que opposition bi sax ñoom ñoo bëgg nekk def deal bi. pour reporter quoi pour me préparer. parce que ils sont de quel genre. ñoo ñoo bëgg a créer ay incident créer ay problème pour am report. problème ay problème yi ñuy wax ni naan le fichier bi baaxut ak eh, normal ut ak. est-ce que c'est un motif suffisant pour. non c'est pas un motif Macky Sall du leen déglu leen fàle Macky Sall il a organisé des élections il participe pas s'ils sont pas prêts ils n'ont qu'à attendre 2029 Mhm. les divisions au sein de Benno Bokk Yaakaar. non il y a pas de division celui sur le choix de Amadou. mais euh, il est meilleur que sinon sinon s'ils ont des divisions à faire ce qu'ils le font ils le par hypocrisie ceux qui ont pris leur valise et sont partis c'est c'est manque de loyauté man je suis ferme là-dedans parce ci ñoo ci bokk. Mhm. man dama ci am ay xam samay gaañ kër ñoo xam ne samay xarit lañ samay kóllëre ak samay mbokk ñoo xam ne ma leen xam dañoo dem mais je ne suis pas d'accord avec il devait jamais quitter Macky nit gor day am koy àndal ba dee dem nit da ngay gore loo xam ne àdduna pouvoir jaru ko alal jaru ko kenn du wor wor baaxul. mais gore gore sa gore. mais gore mooy loolu. nit ki mu ngeen di àndee mu. xam-xam la ñuy yore pour servir le pays amul ba dafa am xam-xam moo la gën a xam gën leen compétent. qui on soit d'accord mais Boun mais bay bi mais Boun Abdallah xam-xam aussi déedéet. koy wax borom xam-xam très confirmé. waaye ban ko xam-xam amul baa gën a expérimenté mën ci arrêté. bun bun ñoo bokk dëgg gosaas bi nday jàng di gosaas laa daan jàng bu ñëw taxaw xam naa grand frère mais bun na d'accord ne il a été premier mais Amadou Ba ko gën a mën expérimenté moo gën a compétent il faut que ça soit très bien xam. c'est votre avis. la réalité. je je mets ma main sur le Coran. wax bu tegoon du ko waat arrêtez là vous prenez des gens comme a été nommé wax Amadou Ba n'est pas comparable à eux Ba n'allait pas être est-ce que est-ce que est-ce que en fait nekkul euh, choix bi nga xam bon jàppale bi ngay jàppale njiitu réew mi. non tànn ko. Amadou Ba Macky da ko on peut comprendre aussi votre position Macky ko synthétiser. oui Ba l'a pris c'est stratégiquement pour le développement du pays et la continuité des projets et du plan de développement du pays. Amadou Ba c'est lui qui a la diplomatie financière internationale. sa méthodologie sa sa sa compétence et sa taxonomie de gestion sa communication et ses capacités idoines de management moo tax ñu jël ko. qualité la bu doon nilaar kenn du ko jël <coughs> Amadou Ba est plus compétent que qu'il l'accepte ou pas vraiment je suis désolé sa sera leur problème parce que ñoom ku ci tëdd sa biir nekk da nga xam ne Amadou baa la mën mhm. ñoom ku ci tëgg ci nekk tëj bunt bi da nga xam ne du seen morom amul morom Sénégal ah il est discipliné il est calme il est expérimenté il, il fait preuve d'humilité fait-il le poids électoral mais il le fera parce que nous nous avons travaillé là-dessus et nous les Sénégalais mhm. on les a conscientisés que le choix de Amadou Ba est un choix stratégique pour le développement du Sénégal. Rater le coach de Amadou c'est de rater tous les projets que nous avons pour l'avenir. C'est clair et continuité Mais c'est continuité Amadou qui fait la président. Non, on, on, on assure pas, la continuité. Mais ça sera du la base peut-être d'un autre programme. mais ils, ils, ils ne viendront que du Manu yow munoo dem ba màkk ba jub kaal jóg ak moom nit naa la dëppal ñu jaare ko góos nga naan da ngay dëpp <laughs> kooku il faut être bête pour le faire d'accord sénégalais euh, ils sont en train d'abuser de l'intelligence des sénégalais en hmm. réveillant un sentiment d'hypocrite de pure race hmm. et si les sénégalais acceptent d'entrer dans ce jeu d'hypocrite là duñ ko nett ni li ma la wax duñ ko nett ni comment Sénégal niveau bi mu toll nii hmm. il n'est pas question de reculer et de d'aller en arrière là où le traverser les entrailles des rails là pour aller jusqu'à l'aéroport si vous voyez les BRT là se faufiler entre les quartiers de Guédiawaye Grand Yoff Grand Médine pour aller à Petersen si vous voyez le développement des hôpitaux au Sénégal ou nous avons plus besoin de faire des scanners de se faire opérer à Dakar on s'opère à si vous voyez les routes et les, autoroutes au Sénégal si vous voyez l'algorithme des personnes et les gens qui travaillent dans l'élevage mais mais monsieur et eh, tu te tu te tu te tu, tu veux te faire un luxe des méandres de d'un imposteur qui vient de nulle part mais tant pis pour eux si des Sénégalais des fonctionnaires sénégalais veulent mettre en en, en cause leur carrière c'est tant pis pour eux mais mais man ce que mais am nañu xam nga quelqu'un peut avoir un choix par hypocrisie par jalousie et par tromperie maintenant je les empêche à ce que les Sénégalais soient trompés mm-hmm. qu'ils soient hypocrites qu'il soit abusé. Je leur conseille de, de nommer de, de, de, de Amadouba dès le premier tour pour qu'on élimine cet ordre de 256 personnes, la partie-là, qui viennent nous tympaniser et perturber notre vie sociale. Pourtant, ñoo ngeen amuñu fi ren lañ génn léegi léegi même les fous là qui viennent des Lazare là viennent participer aux élections c'est-à-dire nga gis benn waaye sax boo xam ne dégg naa nitewul naan yàllaa ma yónni. ñëw di bokk ci parti yi am na ku ñëw sax ne yàllaa ko yónni xam nga on a des problèmes quoi il faut qu'on se remette en cause mhm. parce que États-Unis France dans les pays autres pays africains il y a trois candidats quatre fii ñun mais ku jóg rek dugg ci mbir mi kenn xamul lu mu doon ma ne on n'a qu'à les élaguer et interdire des activités politiques après les élections présidentielles là des décrets pour interdire les gens de parler de politique dans les télé radios et tout qu'on aille à des programmes de développement qu'on parle de sécurité qu'on parle de scolarité qu'on parle de la science dans les universités mm-hmm. comment changer les curriculums qui former comment former les étudiants euh, ce qu'il faut faire pour développer la presse que vous soyez une presse capable de mm-hmm. de des éducations de qui permettent à des élèves de comprendre et que le bac va se passer mais cette année indi ay professeurs qui vous expliquent des programmes de philo des programmes de maths mais nekk fii politique ba dëgg ay on ne peut pas continuer à vivre sur des sur des parrainages élections nangam nangam ah mais qu'on arrête tout ce qui émane de Pastef est à proscrire et ne doit pas participer à d'accord temps bi ñu cërale woon jeex na major ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot par la même occasion ngi tàggatoo di gërëm Sénégalais yëpp di jox consigne ak xel di leen xelal ci jullit ak moroomam nekk seen consultant nekk seen conseil sénégalais yi bu élection yi jotee na ngeen woteel Amadou Ba dem ñibbi seen kër toog balaa jant bee sax mu falu ñu ñu classé affaire politique yi Sénégal jeex ñëpp liggéey ñu jël gaz bi ak pétrole bi lakk gaz bi togg def courant def lu ñu neex jël pétrole bi dawal ci oto yi dara du cher dara du cher rente yi ñu jox ci xale yi ñu liggéey faj mag ñi dimbale jigéen ñi bañ am dara man loolu laa jëm loolu Amadou Ba moo ko mën bon donc on fait pas de propagande parce que comme dañu koy tere mais daal euh, attendez-nous à partir du vingt 24 25 vous allez nous voir dans les télés et partout et nous allons commencer à dérouler notre programme. d'accord merci beaucoup euh, Major euh, Alioune Kandji nekk. Euh, gendarme à la retraite nekk également euh, consultant chroniqueur ñu ngi lay jaajëfal bu baax mbokk yi di leen jaajëfal si jaspora bi ak ci réewu Sénégal di rafetlu bu baax ànd bi ngeen ànd ak Sénégal set di leen dig daje beneen yoon ci seen beneen émission euh, jërë ngeen jëf ba beneen ko.